aduna jeex na sakku yiw jot na loo mën a sakku lu dul bu baax tey ñëw fi pour mën a teen bi nga xam ne commencé woon nañ ko bu yàgg waroon nañ fi ñëw na ca ca boobu ci jamono jooju pour mën a def euh, lancement bi pour mun aussi yónnee ko ñu ko financé xamal leen ni liggéey bi tàmbali na waaye xat-xatu jamono tax na mënuñoo ñëw ba il fallait que ñu dajale ay chaîne yu bëri pour ñëw ci gox bi mën def benn tournée pour visiter yëpp daal tey la ko yàlla dogal. Euh, alhamdulilah comme ni nga ko xamee chaîne bi ñëw na fi euh, pour ngir ñaari mbir maanaam comme dañu wax ni fii ab baara la kon dina jëriñ ñi nga xam ne ñoo fi jàngee waaye tamit dafay jëriñ waa dëkk bi. parce que loolu laa waxoon góor gi ne ko ñun li def day nekk loo xam ne ñëpp ñoo koy bokk ñëpp ñoo koy jagoo daal mu bañ a nekk mëneelu kenn mais mu nekk loo xam ne day ñëw pour suqali askan wi te ndox kuy suqali askan mooy li ci jiit ndax su fekkee ndox amul jàpp naa ne dara du mën a sotti du jaamu yàlla yi du mën a laab du mën a set du mën a tamit lekk doo mën a togg kon faaw ndox am pour dund bi mën a naat te it naka jekk kon ni nga ko xamee borom bi ci lépp ci ndox la la ko bindee kon mbir euh, jàpp na ne ku la ko jox mu ndox mooy bëgg na nga dund yal na yàlla nangu indi su ko defee itam képp koo xam ne jàpp na ci yal na yàlla bindal tiyaaba yu bëree bëri bëri. waa dëkk bi noonu la ñu yittewoo teen bi di leen ñaanal yéen ñi ko fi def di xam ne it di leen xamal ni def ngeen ko fi ngeen ko war a def ma leen di xamal ni amu leen bu leen am benn sikk sàkkane lu dul yiw bi ngeen ci seen bu soobee yàlla di ngeen ko am. ndax euh, boo gisee gox bi yaatu na ñi taxaw fii am na si ñoo xamante ne bii ñëw nañ fii ngir xamee gi yéen wan leen ne gox bii ñu soxla ndox lañ comme ni ngeen defe de kii ndox mi dëkk bii tey am na yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi taxaw fii bëggoon jokkoo ak yéen bëggoon xamante ak yéen ndax lii am na ñu bëri bëgg nañ ko waaye du kenn ku ne mook ko mën a soo amul ndox mën nañu wax ne sa jullit day des. te fii jaamu yàlla ak liggéey rek la ñu xam waaye nag ñu soxla ndox lañ kon ñi ngeen defal ndox mi bu leen am sikk sàkk nag bu soobee yàlla tiyaabam ji ñi ngeen koy séenoo dana ëpp noonu incha allah di leen wax man maay borom dëkk bi di kontaan ci yéen di leen ñaanal tànk yi ngeen ñëwee di leen ñëw ci bismillah ngeen dellu ci alhamdulilah rabbil alamin bu ngeen demee it nga financé teen bi it ñu xam ne ñun ñu kontaan ci mbir mi. di bu baax ñëw fii te ñun bi. ñun teen dafa nekkoon lu raar ci ñun ndax fii amatul teen te ñun yaakaar ci robinet yi rek robinet yi day coupé ba mu coupé da ngay dafay bëgg ndox ndox mooy dundini nit kon nag bu ngeen xalaatee teen bi yéen ñu bokk xalaat yëpp yal na leen ci yàlla windal yëw ñu leen ci sant di leen ci gërëm te teen bi dana fi jëriñ ñoo xam ne yaakaaruñ leen ndax dana ko jëriñ teen bi ngeen xam ne teen bi ngeen fi def tey macha allah amal ñene amal ñëpp nag ndax ndox dafa am ndax day coupe fii weer wala fukki fan ak juróom kon gisul teen doo am ndox kon ñun am nañ ci yéen bu baax. Euh, avec euh, une nouvelle fois nos amis de juste 5 euros voici planter les les germes d'un futur grand projet inchallah puisque c'est un puits qui a la particularité d'être dédié à une madrasa où il y a les enfants de ce grand village de Nyayen qui vont venir Inch'Allah, à terme, s'installer ici pour l'apprentissage euh, du Coran. Pour l'instant, ils sont installés de l'autre côté à la, mosquée. Mais donc, du coup, c'est un puits qui à la fois bénéficiera à cette madrasa et à l'ensemble de ce village qui, manque d'eau euh, plusieurs fois dans le mois, tel que ça a été expliqué par les populations. Donc, c'est un, un grand projet, mais un énième projet avec ce partenaire de taille, ce partenaire exceptionnel qui est Justin Goro avec une confiance euh, sans, pareil, sans égal. Et nous souhaitons, là que ce type de projet continue entre nous. Comme on le voit à chaque fois, hein, ces populations sont demandeuses d'autres types de projets, d'autres formes d'aide, que ce soit pour cette madrasa, que ce soit pour euh, des écoles ou autre chose. Nous invitons donc à une collaboration beaucoup plus renforcée sur des projets qui peuvent revêtir des formes différentes, mais qui ont le même objectif, celui de changer la vie de ces populations en bien et de leur faciliter la tâche, pour qu'à terme, Allah nous facilite la vie ici-bas et nous accorde la baraka et nous accorde sa récompense dans le-delà.